waaw tey dañ ñëwoon fii ci DER ci délégation à l'entrepreneuriat pour les femmes et les jeunes ñëw waxtaan ak ñoom ci li nga xam ni mooy euh, gis ku su njiiti réew mi ci accompagner wala jàppale ndaw ñi ci mbiru xëy ak euh, emploi mais également ci seen jàppale leen ci seen financement wu ay projet xam nga Sénégal moom li ñu li ñuy wax rek mooy ndaw bu ne li li la préoccupé mooy looy suturloo yaak sa njaboot wala ak say waajur ba tax na kon président de la république dañuy saluer pertinence vision mooy gis-gisam bi mu am pour def instrument boo xam ni dina gën a jàppale ndaw ñi mais ci ni mu gën a gaawee mooy ñu baral suñu loxo ci jàppale accompagnement jeunes yi loolu moom la ñuy tudde entrepreneuriat rapide ba tax na tey euh, occasion la woon pour ñun ñu ñëw partager ak waa DER projet yi nga xam ni moom la ñu am ci ministère bi mais également waxtaan ak ñoom ci li nga xam ni ministère bi mën na leen a jàppale ci nu ñu mën a gën a xamale nit ñi li nga xam ni mooy projet yi nga xam ni moom la ñu porté ndax tey président de la république dafa def choix ci ndaw ñi dafa gëm jeunesse bi dafa bëgg jàppale ndaw ñi mu jël pour un début sur fonds propres juróom benn fukki milliards dugal ko ci entrepreneuriat ndaw ñi muy lu am solo loo xam ni war nañ ko xamale Sénégal yi beneen bi mooy tey ay bailleurs de ay partenaires au développement woolu nañu état Sénégal woolu nañu laa DER ba ñëw dugal ci à peu près 70 milliards pour wane rek li nga xam ni tey DER am na ko en terme de crédibilité mais également de pertinence ci projet nga xam ne mu ngi koy jàppale ndaw ñi mais président de la république yemul ci loolu dafa ni ci at bi ren ñu jëm ñuy dugg muy 2021 dina mobiliser sur fonds propres budget Sénégal lu toll ci téeméeri juróom fukki milliards pour jàppale ndaw ñi encore muy de benn conviction renouvelée muy gëm-gëm bu bees bu président di suqali rek jëmale ko ci ndaw ñi pour lu mu leen di gën a jàppale. loolu nag dafay laaj ñun ñëpp ñu lëkkale suñu doole ñun ñëpp ñu joxante loxo gën ko xamal ndaw ñi gën a def promotion boobu wan ndaw ñi ni président bàyyi na leen xel. président teg na ay instruments yoo xam ni ku bëgg a suturlu ku bëgg a euh, projet ku bëgg liggéey am na foo mën a jaar mais loolu. nee naa warul yem dakaar ak Thiès rek ndax dañu gis ni start-up yi mooy société ndaw yi yu yu ko soog a juddu moom la ñuy start-up ci domaine innovation ñoom entre dakaar ak Thiès la ñu ëppee mais dañu war a def noo xam ni Sénégal gi yëpp ñoo koy yëg Sénégal gi yëpp ñoo ci mën a bénéficier wu bien que la DER xam nañu déployé na sur l'ensemble du territoire beneen bi mooy ñu waxtaan ak ñoom ci nan la ñuy def ba mbiru. financement yooyu ñu mën ko baral mooy lu mu gën a gaaw gën a baax ndax ndaw ñi soxla nañu vraiment jàppale mais jàppale bu gaaw kon ci loolu war nañu utiliser xarala yu bees yi te ñoom gis nañ plateforme yi ñu def en place pour que ndaw fu mu ne ci Sénégal mën a connecté wu mën a déposer donc sa demande mën na ñu jàppale même ci fi ci formalisation mooy nga am këyit am euh, registre de commerce am NINEA mais également soo bëggee ubbi compte bancaire ak financement nga jot ko en ligne nga commencé say activité loolu yëpp lu lu lu am solo la mais donc kon war nañu ñun xool nan la ñuy def ak euh, ministère bi ñun projet ñu porté ñu ñëw partagé ko ak waa DER mais xamal ko waa Sénégal yëpp donc ci loolu donc signé nañu convention boo xam ne du moo ñuy permettre ñu lëkkale suñuy doolee lëkkale suñuy intelligence xool ensemble nan la ñuy porté vision chef de l'État pour que jëmale ko jëmale ko ci ndaw ñi bokk ko ak ndaw ñi partagé kook ñoom ñu xam fan la ñu mën a jaar suñu bëggee financement bañ fañ koy jotee mais suñu jotee financement ba pare nan lañ leen di accompagner pour que financement yooyu également mën a dund dund bu yàgg ndax li ñu seetlu am na start-up wala jeunes yu bëri dañ leen di financer suñu demee tuuti rek xaw am gàllankoor donc te loolu dafa jaadu xool nan lañu leen di former mais également suivre donc point yooyu yëpp mooy yi ñu waxtaane mais nee naa aussi nañu profité ci xarala yu bees comme ni ma ko waxee même page Facebook ku ko am bëgg financement. mën nga fa jaar pour am financement. absolument ku bëgg ku am WhatsApp par WhatsApp mën nga fa jaar pour financement. mais également ñu ngi travailler ak les opérateurs pour am benn euh, plateforme boo xam ni du sax jar ngay am connexion internet pour yónnee sa demande nga xam ni plateforme la boo xam ni ku amul sax. internet ku amul crédit bëgg a yónnee euh, connexion bëgg a yónnee sa demande war nga ko mën a euh, envoyer ñu jot ko ci plateforme loolu lépp mën nañ ci wax ci opérateurs yi c'est un projet bu ñuy développer pour que ndaw fu mu nekk ci Sénégal fu mu nekk ak lu mu bëgg comme financement accompagnement mun ko mën a bénéficier wu donc tey tey par le par le numérique ak euh, la DER tey DER ci début bi 3 milliards la amoon pour mbiru euh, numérique ci 30 yi mu njëkk a jot 3 milliards la ci amoon tey dem na ba mobiliser quinze milliards ci li nga xam ni mooy enveloppe am muy enveloppe bu am solo boo xam ni jox nañ ko wàllu numérique mooy domaine boo xam comme neen ko xamee c'est un domaine d'avenir domaine la bu xam dafa dynamique mais également ni mu dynamique noonu noonu la war a aussi barale pour que financement yi gaaw ba tax na kon dama ni euh, le délégué général ñu travailler ak suñu équipe yi pour que fin projet bu ñu déposé mu ci traitement bi mu nekk entre fukki fan ak juróom ak benn weer maximum pour que nit ki jot financement. kon loolu day demander expertise yi ñu yor pour analyser dossier yi pour traiter ko ñu boole lëkkale suñu doole pour loolu mun a ga mun a am ba tax na kon ci loolu vraiment waxtaan nañu ba nii dañuy def benn équipe boo xam ni su ñaari. min ñaari ministères yi mooy ministère économie numérique ak la euh, la délégation générale ñooy lëkkale seen i doole teg équipe boo xam ni mooy assurer suivi yooyu mais également lëkkale seen doole pour prise en charge efficace préoccupation jeunes yi dans le domaine du numérique. donc euh, ñu fàttali rek nii président la république enveloppe bi mu mujj teg muy 350 milliards pour la jeunesse ci ñetti at yi ñu jëm wax na ni nañu génne cent cinquante milliards ci plan d'urgence bi pour teg ko pour ndaw ñi loolu numérique daf ci war a jël paaram bu baax ndax xam nañu économie numérique ni mu mën a mobiliser tey ni mu mobiliser jeunes yi mais également ni mu mën a mobiliser jeunes yi créer emploi pour l'avenir mais aussi ay emploi décent de ce point de vue là ñun dinañ ci liggéey pour ci cent cinquante milliards yooyu pour que numérique am ci part bu am solo ndax tey li mu mën a mobiliser ci jeunes yi ak ci ndaw ñi ak jigéen ñi kenn xaw nu mu toll ñun ñu ngi développé benn projet bu ñuy wax développement entrepreneuriat féminin donc ci Sénégal boo xam ni jigéen ñi lay jàppale ci li jëm ci mbiru numérique donc projet boobu seetlu nañu ni jigéen ñi tey ñu ngi ci xolu numérique ci grand prix chef de l'État pour l'innovation numérique bi nga xam ne moom lañ mujj a def ñetti lauréats yi nga xam ni ñoo gagné grand prix du chef de l'État ñaari prix yi ay jigéen lañ kon xam nañ tey jigéen ñi nañ nekk au cœur du numérique kon tey war nañ gën a bàyyi xel jigéen ñi te ñooñu ay jigéen lañu mais ay ndaw lañu mooy jeunesse bi mu ngi ci cœuru numérique mais ci biir jeunesse boobu aussi les jeunes fii dañu nekk au cœur donc du numérique kon nañ leen gën a bàyyi xel gën leen a jàppale donc ba tax na kon donc loolu daal noo ñëwoon partage tey vraiment ak le délégué général di ko féliciter encore di ko encourager parce que il se déploie il se bat gis naa ko ci terrain bi déployer nu mu porter la vision du chef de l'État nu mu koy mettre en œuvre na xam ni mun na compter suñu ministère na xam ni mun na compter ci ñu nekk ay ndaw ay ndaw président de la République ñu joxante loxo mettre en œuvre sa vision et ses orientations.